mais lan mo gëna graw garaaw li man bi deuxième fois tay ma dem buntu ma dem biir rebeus 9h fekk ma fa ma ag ñu ne mëno gis Cheikh Omar parce que lan suis tax gis parce que nenañ dafa am ku dugg gis ko ba pare. légui li gëna a que mooy euh, yamatuñ rek si si si si prisonnier bi ko ay ak ak ay mais au delà de lolu dañ koy continuer diko xañ li nga xamanteni ni ay droit bu Cheikh Omar Diagne euh, prison yi nek rebeus parce que dañ ko xaaj par ay groupe quoi bu ma expliquer pour nit ñi euh, comprendre quoi ba lañuy jaawale fofu moy dañu nan groupe 1 ñom ñoy am visite le lundi groupe 2 le mardi groupe 3 le mercredi Cheikh Omar Diagne bok ci groupe bi nga xamanteni parce que comme Samb 38 la nek dafa bok ci groupe bi nga xamanteni ni ñoom jeudi ba jeudi lañu am visite mais li gëna graw ci lolu moy dañu né Cheikh Omar Diagne mom au delà muy am jeudi ba jeudi par visite légui bu amé jeudi bi visite. jeudi bii di ñëw du am visite daf koy jëlal léegi bis si topp lay amaat visite te bis si topp bu amaatee visite benn visite lay am yéen a yéen a ngi dégg bu baax li ma leen di wax maanaam dañ ne Cheikh Oumar Diagne moom amul droit di am visite chaque jeudi day jëlal benn jeudi te malgré si biir jëlal benn jeudi yooyu noonu benn jeudi bi muy jëlal muy quinze jours benn visite la am droit am si quinze jours yi xoolal xoolal xoolal jalgati ak ay yelleefu doomu aadama boobu noonu. jalgati bi droit prisonnier parce que sax Cheikh omar de ko prisonnier parce que euh, séquestration laa ko mën a parce que état Sénégal moom moo séquestré ko fi prison mais lan administration bu pénitentiaire bu rëbës ñu tëj Cheikh omar ci kaso bi mu a am visite chaque wala chaque 15 jours bu visite jeudi bi mu visite ba ñu chaque 15 jours benn visite droit bu ko kenn xasee ba dugg ba gis ko keneen dootu ko gis léegi zone biir ñëw ba su topp la keneen mën a dem pour gis ko lan mooy dayu loolu man bii mooy deuxième fois ma dem ñu may résider parce que nee nañ dafa am ku ma na Cheikh Oumar Diagne ko mën a gis. Euh, après bi ma fa demee am na benn gaañ bu fa dem li loolu moo si gën a doy waar xam nga man sax dama dem ci port bi xëy na xaw ma xàmmee nañ ma xaw ma xàmmee wuñ ma dañ ma résider ci port bi ne ma am na ku ko gis ba pare mënoo koo gis mais moom bi mu demee ay 10 heures yooyu noonu dañ ko dugal ba mu dugg si biir salle ba toog ñu toog toog di xaar di xaar lu yàgg ñu jékki-jékki ñëw na ko Cheikh Oumar Diagne ko gis parce que déjà am na cinq personnes yoo xam ne gis nañ ko maanaam nee nañ ko yow mënoo ko gis parce que am na cinq personnes ne visité naa ñu ne ma dafa am kenn ko dugg kon keneen doodu ko mën a gis moom mu àgg ñu ne ko am na cinq personnes yu yoo xamante nii gis nañ ko pare xoolal fen yooyu nga xamante ni administration pénitentiaire mi ngi koy fen ñi nga xamante ni ñoo ñëw di seet Cheikh Oumar Diagne lan mooy ndayu Cheikh Oumar Diagne nekk si kaso bi amul di am visite Zaxodi bu fekkee 15 jours amul droit am ñaar ba ñetti visite lan mooy ndeyu loolu te prisonniers yi di am visite à partir de 8 heures ba 13 heures ñu pause ngoon ma abi 15 heures ba 17 heures ñu amaat visite lan moo tax Cheikh nekk benn visite lay am droit am loolu si ban réew la nekk ban Sénégal la ñu nekk mooy da tëj nit ko ba pare di ko xañ ay ak ay yelleefam donc je pense loolu moo am si dossier Cheikh Omar Diagne muy jaay doole boo xamante ni yamatul. ci dugal ko ci biir kaso bi mais jaay doole bi day continuer di wéy si biir kaso bi ñoom ñu koy def administration pénitentiaire di ko def parce que état bu Sénégal moo ko sant di ko def loolu lan mooy ndeyu loolu si ban réew la ñu nekk si ban réew la ñu nekk Sénégal yow nga ne prisonnier bi tëj nga ko day am visite chaque 15 jours mais chaque 15 jours yi benn visite la am droit am benn visite boo xam ne 15 jours ba 15 jours benn visite te te visite yi boo ñi ñi lan lan lañ ci bind mi ngi nii.

té jaay doole bi yamul ci bitume mais ñi ngi jaay doole ba ci biir kasso bi billahi billaahi wallaahi watallaahi beeboo nag ku nekk nga dugg ci combat bi pour la libération de Cheikh Omar Diagne parce que bu fekkee li ñii ñi ngi koy seetaan muy jall état bu Sénégal di continuer di bafouer ay droit am di continuer di violer ay droit am si biir prison ci biir prison bi nga xamné moy prison bu bi mu nekk té yeneen prisonniers yi kenn defu leen loolu lan moy nday ñu def Cheikh Omar Diagne te defuñu ko yeneen prisonniers yi lan mo tax yeneen prisonniers yi mayu leen ñu am ñu may leen ñu am visite toute la journée Cheikh Omar Diagne par 15 jours muy am benn visite par 15 jours benn visite lan moy ndeyu loolu xanaa Cheikh Omar Diagne mom du sénégalais comme yeneen sénégalais yi Cheikh Omar Diagne mom du détenu comme yeneen détenu yi nga xamné ño nek biir prison bu rebeus lan moy ndeyu ñu may détenu yi nga xamné ño nek nekk sen seen ak sen yelef ak sen droit de visite te muy ñu Cheikh Omar Diagne ci ban réew la ñu nekk ban genre Sénégal moy da ngay japp ben nit parce que ay góor jigéen ñoo demandé ñu japp ko boko jappé après après da ngay violer ay droit am violer ay àq ak ay yelleefam sénégalais yi billaahi wallaahi wa taala beewu ngeen yeewu te xamné li nekk di xew ci biir prison bu rebeus ak professeur Cheikh Omar Diagne gaay yi fi jëm moy dañ ko fay tëj ba heure bu leen neex ba paré continuer di bavouer li nga xamante ni mooy ay droit ay akam ak yelleefam te lepp nak Macky Sall en personne la parce que mom mo ne ci ginnaaw administration pénitentiaire bu rebeus ñuy def lu leen neex te defuñu ko yeneen prisonniers yi defuñu ko yeneen prisonniers yi lan moo tax defu ñu ko yeneen prisonniers yi di ko def est-ce loolu jaadu na est-ce que loolu jaadu na ñun ñuy continuer di seetaan ñuy continuer di toroxal Cheikh Oumar Diagne ci biir kaso maanaam toroxal bi yamatul rek yóbbu ko kaso pour humilier ko mais dañ koy continuer di ko toroxal di ko xañ li nga xamante ni mooy droit de visite bi nga xam ne chaque détenu da nga am droit am ko. parce que bépp détenu boo xamante ni placé na la sous mandat de am sa mbokk bu ko neexee tey tey mu dem gis la. malgré nak légui li xew ak coronavirus moy day am ben ben 15 jours bo xam da ngay nek ak quarantaine mais 15 jours bo xasse ba jeex da nga am droit visite lan motax bo démé ci euh, bureau de justice doyen de doyen de justice Mamadou Seck bo fa démé de wut permis visite lan motax waxuma ne ma par 15 jours lay am lay am droit visite ben visite lay am gisu leen benn permis de visite bo xamanteni ni dañ ko wut pour Cheikh Omar Diagne ñu bind ci né chaque 15 jours ben visite la am droit am c'est pas normal du deug du yoon li xew ci dossier Cheikh Omar Diagne du dëgg du yoon te ñu ngi koy seetaan ñu ngi seetaan lu garaaw a garaaw loo xamante ne nii billaahi wallaahi wataalaahi ku nekk si ñun ku nekk si ñun di xeex ay àq ak ay yelleef di xeex injustice ku nekk si ñun di xeex li nga xam ne mooy mbirum góor jigéen jàppal ne li daal Cheikh Omar Diagne mu ngi sa kaw li daal Cheikh Omar Diagne mi ngi sa kaw ku nekk kenn rëccu si ñun parce que lii dafa garaaw trop c'est trop lii dafa ëpp lii dafa ëpp dafa ëpp yow nit ki tëj nga ko doy na mais bul violé ay li nga xamanteni ay ak ak ay yelefam xana ki ray nit sax ki ray nit sax ki ray nit sax dafa am ay akam ak ay yelefam yo xamanteni dañ ko wara respecter même bu démé prison dañ ko wara respecter waxuma la ki nga xamanteni ni dañ ko tëj parce que nee diffamation incite public lañ ko tëjee sama frère Gas El Salvador kañ la génn bëgg démb la génn lan lañ ko jappé diffamation même fee ñu jappé Cheikh Omar Diagne lañu ko jappé te jàpp nañ ko boobu bi ñu koy jàpp fekk na Cheikh Omar Diagne mi ngi si biir kaso bi jàpp nañu ko ba siise ko tëj ko un mois de ferme te ba léegi Cheikh Omar Diagne mi ngi continuer di nekk si biir kaso bi ko topp parce que dañ ne woon dafa menace de mort ki xam mooy tantaay Adji Sarr anamu tey yóbbu nañ ko franc grand délit bàyyi ko parce que Cheikh li ñu koy toppee diffamation dans les li nga xam loolu la yoon wax yoonu contrôle judiciaire nekk si woon yoonu instruction nekk si woon lan moo si amoon mooy dañ ko waroon yóbbu flagrant délit bu fekkee ñoom dañ ne diffamation injure publique injure publique lan la wala ñoom bu fekkee ñoom dañu jaawale injure publique ak injure privée ñu wax ñu injure loo xam ne daf ko wax publiquement ñëpp di ko seetaan télévision débat débat émission ñëkk di ko seetaan Légui lan moy ndey ñu jël loolu di ko instruction di def information judiciaire information judiciaire néna naa leen ñoom ñooy am droit heure bu leen nexé lañuy tejj information judiciaire bi bu leen nexé fi ak 1 an fi ak 2 ans ñu né dañuy top dañuy top li nga xamanteni moy sen sen sen sen enquête bi ñuy def pour information judiciaire bi nga xamné police judiciaire moko wara def té bul xam kañ la paré heure bu leen nexé lañuy paré légui nak il est temps ñun sénégalais ñu jël combat bi xamné Cheikh Omar Diagne bu ñu dugul xéxal ko billahi wallahi wa taalaahi Macky Sall pareegul pour libérer ko parce que ba légui mi ngi topp ay ordre yo xamanteni ay góor jigéen ñokay jox pour yeen Macky Sall lan moko ko lan moko ko lan moko ko barki démb bu Paris bi mu jugee RIS. parce que ñom ñep c'est des link xoolal c' des link LGBT ay link góor jigéen ñom ñep ay góor jigéen gis nga ñu bëri si ñom mun ñu toog benn mois te demuñu Paris wala wala wala ñu dem Allemagne parce que ay ay ay ay dañuy dañuy yi ñuy taafandoo di ko wax nit ñi dañuy ko ñu dëgg. ay link góor jigéen rek moo leen yóbbu si ñu bëri bëri si international bi te Cheikh Omar Diagne loolu moo tax ba léegi mu ko ne des si kaso bi parce que dafa am ay góor jigéen yoo xam ne ñoo ko ne demande état bu Sénégal mu nii ko si kaso parce que xam nañu ne Cheikh Omar Diagne bu génnee si débat public bi xëy na dina leen déranger déranger boo xamante ni nii boobaa du leen arranger te aussi élection législative yaa ngi ñëw. te ku nekk xam na ne Macky Sall dafa taxaw fii wooyee imaam ne leen li nga xamante ni mooy élection locale yi tax ma ñàkk ko parce que dañu jël li nga xam ne mooy débat homosexualité bi di ko campagner moo tax parce que askan bi xam nañ ne askan bëgguñu góor jigéen li ko campagner moo tax ma daanu si élection yi. Macky Sall moo loolu en public télévision ñëpp di ko dégg en public la ko waxee télévision ñëpp di ko dégg. mu ne leen li tax ma ñàkk élection locale yi parce que dafa am ay nit yoo xam ne dañu jël li nga xam mooy débat homosexualité bi di ko campagne te xam na ne nit ñi bëgguñu homosexualité loolu moo tax ma ñàkk élection yi waaw élection locale yi passé la ko wax léegi pour yéen hasard la après bi loolu jàllee ñu tëj Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi te Cheikh Oumar Diagne bi ñu koy jàpp dafa waroon a présenté wu pour nekk député à l' assemblée nationale man moo ma wax man ma dégg man nettali ne ma li taxoon mu bëgg a dem à l'Assemblée nationale xëy na soxnaam mi ngi seetaan live mën na ma seere mu ne ma li taxoon mu bëgg a dem à l'Assemblée nationale du salaire du oto du gasoil du carburant du dara soxlawul garde corps soxlawul dara parce que li taxoon mu dem pour mën a teewal askan bi aussi tamit loi yi nga xam ne ñu ngi ko fay jàllale parce que si lay gën a amee accès si yenn loi yi nga xam ne mi ngi jàll à l'Assemblée nationale pour teewal askanam loolu kese. mais soxlawul salaire soxlawul oto soxlawul dara parce que loolu lépp suñ borom defal na ko pare muy teraanga parce ku nekk nag am na teraanga boo xam ne suñu borom defal na la ko au delà ngay dugg si combat boobu au delà ngay nekk si yeneen ak yeneen. léegi nag xañ nañ ko loolu parce que xam nañu ne ku nekk ku mel ni Cheikh Omar Diagne bu demee à l' assemblée nationale day déranger état bu Sénégal day déranger Macky Sall parce que Macky Sall nekkul si lenn lu dul naka lay fexee pour daganal góor jigéen Sénégal bala moo dem 2024. parce que depuis 2013 ba légui ñi ngi jox ay récépissé goor jigéen bis bu yalla sàkk di leen di leen jox ne leen am ngeen liberté am siège di def ay réunion di def lu leen neex parce que am ngeen am ngeen droit circuler ci dëkk bi parce que am ngeen ay récépissé yu leer nañ ñaata mouvement citoyen ñoo fi nekk di xeex boobu ba léegi depuis depuis depuis avant 2012 ba léegi récépissé sax nanguñ leen ko jox parce que dañuy xeex état bi ñu jël ay récépissé di ko jox ay góor jigéen ñoo xamante ni ñoo yàq suñu ay doom yàq suñu ay valeurs dem ba nit ñi dem ba suñu suñu dem ba xale yi da ngay parfois da ngay gis nit sax doo xam ba xam góor la wala jigéen la te loolu lépp dañ ko état bu Sénégal daf si liggéey liggéey bu am solo jaarale ko si éducation bi jaarale ko si santé bi jaarale ko si lépp boobu ba léegi di ko doxal ba tey mu àgg fii mu egg si ni lépp grâce à ak Sall moo tax góor jigéen nga koy dégg ni nga koy déggee fii Sénégal jamono Abdoulaye Wade daan nga ko dégg mais sarax nga koy dégg wala si benn da nga ko daan déggee te nit ku siiw la woon mais jamonoy Macky Sall bis bu set nga dégg ay góor jigéen. moo tax sànq li ma wax si live bi ragalu ko ah, mooy bépp homme politique boo xamante ni nii taxawul wax position bu claire si li nga xamante ni mooy mbirum góor jigéen bu ko kenn voter à l'Assemblée nationale. parce que bépp homme politique boo xamante ni jëlul ay position yu leer yoo xamante ni si mbirum góor jigéen ne bu ñu toogee dañuy criminaliser góor jigéen bu ngeen ko yóbbee à l'Assemblée nationale mooy day day daganal góor jigéen gars yi dañu xoolal dañuy yi di di ay xeetu manipulation la quoi di ñu nax mënuñu nax dañu yeewu dañu yeewu nax bu ñu jàppee ne sénégalais yi ba léegi dañuy nelaw bu ñu jàppee ne ba léegi mën nañu manipuler sénégalais yi di indi di wax di indi ay idéologie naan non c'est que c'est-à-dire xam nga joo joo jigéen tollaguñ foo xamante ni war nañ ko criminaliser parce que boo ko criminaliser mën nañu gis nit jekk jékki rek ne ko góor jigéen nga loolu mooy waxi lan waxi tappale yooyu mooy lan ay man nga dëkk si benn ko nga jékki-jékki rek gis gis nit neexu a nga ne góor jigéen boo criminalisé après loolu day indi ay ay ay jafé jafe ay wax yo xam wax yu téwul fenn waxu tapalé yo xamante man xawma sax ci ban Sénégal lañu ñu nekk. te ba ngeen touba sen wax yooyu sen seen wax yooyu ngeen wax non wax yooyu téwul dé moy képp ko xamné bëgg nga dugg à l'Assemblée nationale wala nga bëgg nga nekk président fi Sénégal da ngay wax say positions scalaire ci góor comme Ousmane Sonko nim ko défé wax ay positions yu claire quoi nekk ñu fekk naan diw wala diw mais dañu né képp koo xam ne nekk député à l'Assemblée nationale wala nga bëgg nekk président Sénégal da ngay wane position yu ci li nga xamante ni ay valeur fan fan nga est-ce que di nga ñu ko est-ce que di nga ñu ko li xew leen ko permis de visite yi muy euh, di permis de visite ñu def ñu vendredi ak mardi te donc si professeur Cheikh Omar Diagne dañu ne ko yow amoo droit am visite ñaari jours yo semaine mais euh, chaque deux semaines bu nekk benn visite nga am droit muy chaque quinze jours benn visite te benn visite bi donc parfois sax kenn du gis bo demee ñu ne la am na ko gis ba pare man tey la heures laa dem prison bu rëbëx ñu ne ma am na ko dugg ba pare instant yi mënatoo dugg mais woon ñu xeex pour ñu libérer Cheikh Omar Diagne ah, parce que lo rek la fi gis li ma fi gis mooy état bu Sénégal gul pour libérer Cheikh Omar Diagne parce que góor jigéen yi pareeguñ pour bàyyi Cheikh Omar Diagne mu dem ñibbi këram loolu moo tax dem nañ bay mujj sax di négocier di woo ay nit ñoo xamante ni ay ay ay marabu lañ pour ñëw naa leen ñëw leen ngeen di ko parce que kii dafa dafa amee seen sëriñ dafa waxoon dafa waxoon li am ñu jug kenn xamul fan lañ jógee ñëw di pelent ak seen ay jóoru pelent mais mujjul fenn parce que dëgg rek mooy dëgg te dëgg rek mooy mu dëgg mooy mujj te dëgg mooy dëgg Cheikh Omar Diagne dafay déranger li nga xam ne mooy état bu Sénégal loolu moo ko téye si kaso bi ba léegi moo tax sénégalais yi il faut que le 11 muy samedi ginnaaw suba incha allahu rabbi le 11 faaw sénégalais yëpp ñëw 14h place de l'obélisque ñu fees fa dell pour wane suñu soutien si Cheikh Omar Diagne par principe nag par principe. par principe mooy lan parce que ànd ñu si góor jigéen parce que ànd ñu si li nga xamante ni def nañ ko muy séquestration contre Cheikh Omar Diagne si loo xamante ni dañu gis ne injustice la ñëpp di ko gis Sénégal yëpp xam ne lii injustice la. yaakaar ne Sénégal après noonu nii lañ koy bàyyi quoi mooy ñu jàpp ay nit di tëj parce que ay ay góor jigéen la ñuy xeexal nga gis ay nit yu naa feq ñëw taxaw ne dañuy défendre président quoi lan lañ koy défendre parce que naan non c'est que président mi ngi liggéey président def na lii moo fi def terre bi moo fi def lii moo fi def lii après terre bi lan la ñu jural ay nit yu naa feex ay nit am na ay nit yoo xamante ni nii gis nga ñi ngi si ñi ñenn ñi ngi si Europe bi ñenn ñi ngi fii di def ay live gis nga billaahi wallaahi wa taalaay gëmuñu dara xam la lañ gëm xam la lañ gëm mooy li nga xam ne loolu leen état du Sénégal di jox di leen jënd ñu koy tagg gëmuñu dara dañuy sóob. xam nga ne ku taxaw naan Macky Sall mi ngi liggéey mag Sall dafa am yërmande Sénégalais yi dund gi dafa nga dem ba gis ay mag yi jëmm taxaw si ay plateau télé naan la dund gi dund gi seeru dund gi yokkuñu ko loolu dama nga wax ko sénégalais yi nga xam ne dañuy xëy di jënd Nescafé Nescafé bi daan jar juróom si biti gi dama nga wax leen ne leen dund yi kenn yokku ko omo sax dañ ko yokk bi doon jot cent franc ñu koy jaayee cent vingt cinq Sénégal dem ba toll foofu am ñuy taxaw ci télé ak rajo yi di défendre président quoi parce que nee nañ président mi liggéey te dafa am yërmande si sénégalais yi lu yàqu Sénégal rek Macky sàll moo ko yàq Macky Sall baaxul te ànd ku baax te mës sa àndal ak ku baax xam nga Serigne Serigne Serigne sàll Sall waxoon na ko ne président de la république Macky Sall yaa ngi liggéey waaye ñi la wër kenn baaxu si Serigne bi da ko warul suur boobu moo tax mu ne ko ñi la wër kenn baaxu si xam nga mënoon na ko mënoon na ko ne Macky Sall yaa ngi liggéey mais ñi nga àndal kenn baaxu si. mais rus gi mu ko rus moo tax mu ne ko ñi nga ñi la wër kenn baaxu si mais daf ko waroon wax ne ko yow baaxoo ñi la àndal kenn baaxu si parce que amuñu benn yërmande si sénégalais yi amuñu benn yërmande si senegale yi léegi nag ñun sénégalais yi ñoo war a taxaw am fulla ak fayda yu toll ni taxaw ngir défendre suñu réew mu jaral ñu teele suñu bakkan billahi wallahi wa taala fekk Sénégal jaral la guñu mu teele suñu bakkan ngir Sénégal li ñu bëgg duñu ko mas am li ñu bëgg duñ ko mas am mooy dañuy xëy dem élection après ñu ne liste bi mooy dem liste bi du dem liste bi éliminé nañ ko bii mooy dem bii titulaire bii suppléant après ñu taxaw naan non lii du yoon c'est pas normal ainsi de suite la après ñu ñu wax ko dem ci manifestation après bu ñu fa jugee mu jeex ñu dellu ku nekk dellu ci lim mu nekkoon quoi après élection yi ñëw au lieu que ñu ne élection du am wala liste yëpp nañu dem après danaan ak ah, garaawul. nañu dem rek bu ñu demee xëy na bu ñu demee si liste bi nga xam ne moom la ñu am xëy na yàlla mën naa def ñu gagné ko du ñu gagné dara waxoon naa leen fii Macky Sall dafa yor ay dafa yor ay ay ay ay ay ay ay fiches électorales yoo xamante ni chaque élection moom lay demee élection 2019 Macky Mouhamed Boun Abdallah Dionne taxawu ne dinañ gagné à 50 pour cent Abdoulaye Wade taxaw wax ko bi ñu demee ñaata ñaata pour cent lañ gagné même li ñu waxoon loolu lañ gagné. chaque élection amna fils électoral bo xamanteni mom ni la yobbu pour war ci dem élection bu dem xamna lan la wara gagner lan moo tax pour yéen parrainage mu war ko ci élection législative yi jaaxalu leen local da koo def ñu dóor ko dóor yu métti parce que amul ben pexé pour mëna contrôler vote bi légui nak il faut que ñu tàkk ñun sénégalais yi ñu xamné japp bi ñu japp Cheikh Omar Diagne du question ko ay diffamation du question ko du question de menace parce que gisu fenn foo Cheikh vous Diagne menacé nafa lolou ay yu leer la état bu Sénégal ko ci kaw Cheikh dafa menacé gis fenn fo ne Cheikh Diagne dafa menacé ngir wax amul fenn fo Cheikh Diagne def nafa ay menace après ñom ñu diffamation lan moy diffamation bi moy euh, moy dana fait dafa vous li nga xam moy PCA diffamation bi

taxaw na fa waa ànd sàmm jikko yëpp nekk fa mu ne leen yéen dama yaakaar ne da ngeen am problème ak da am bi ngeen di nekk xale da ngeen amoon problème ak ay ak ay góor jigéen dama yaakaar ne ay góor dañ leen a mës a tëddee moo tax ngeen am haine bi contre góor jigéen ñi lan moo ko si fekk dara fekk ko si parce que lan parce que APR la bokk parce que lan parce que mouvance présidentielle la nekk parce que lan parce que dafa jege Macky Sall parce que day défendre Macky Sall parce que day dellu ci aw ci ci kaw ay opposant ak ay activiste di leen saaga te du mujj fenn parce que dafa bokk ci Macky Sall bokkul ci Macky Sall bu ko defee après mooy loolu loolu mooy si su Sénégal mooy da ngay ànd ak Macky Sall lu la neex nga def àndoo ak Macky Sall lépp loo def yoon dal sa kaw. lépp loo def yoon dal sa kaw pour yéen pourquoi Macky Sall dem dajale saa saagakat yi di def ak ñoom ay ay ay live quoi naa lay non ñu ngi nii président nit ñi bëgg nañ ci yow xam nga ñi ñu ngi Macky Sall ñàkk fayda ñàkk fayda gu toll yi ñoo xamante ni dañ doon saaga ndeyam démb si ay live Facebook tey ñooñu la àndal ñuy def live naan ko président nit ñi kontaan nañ ci yow nit ñaa ngi lay bëggee boo xam ne amul benn légitimité quoi si si bëtu si bëtu nit ñi mu jiite. amul benn légitimité Macky Sall amul benn légitimité si nit ñi mu jiite léegi nan lay mujj def mooy euh, day dem di di wuti ay ay ay légitimité ay ay Russie quoi ay France foofu la koy wutee. maanaam yenn yeneen dëkku Afrique gis ko wala yeneen dëkk yi nga xam ne ay tubaab lañ ñu ne ah président kat mooy loolu jàmbaar la parce que yenn mission yu bëri yoo xamante nii pour suqali Afrique daf fi daf fiy dox daf fiy dem ay mission lépp Afrique daf ko jaral lu nekk muy dem fu nekk ngir Afrique fekk na day fen gëmu si dara dara dara dëkkam bi mu bàyyi ay problème mu kese kese kese la fi bàyyi ñu fi bàyyi nit ñi xiif amuñu lu ñu dundee nit ñi mar amuñu ndox mu ñu naan sangu sax parfois pour def ko problème la lan dem naa da ngay régler ay yeneen problème yoo xamante ni dafa concerne ñaari dëkk yu xeex te yow sa dëkk nga bàyyi fi lu raw xeex te mënoo koo lijjanti nga dem naa da ngay lijjanti yeneen problème Macky sàll kan la yàpp ak ñàkk jom gi nekk si moom ak ñàkk légitimité lan moo tax mag Sall mënoo liggéey ngir Sénégal nga am fi légitimité sénégalais yi naw la sénégalais yi bëgg la ko am fu ñu la teg tuuti moo gën ngay dem di ko wuti feneen si tubaab yi. tubaab bi dem ba ñu may la benn légitimité mënoo dem ba am légitimité seen ay bët parce que xam nañu ne sa réew liggéey yoo fa dara loo xamante ni xam nañ ne sa waa askan bëgguñu la xam nañu ne da nga dëkkee di toroxal sa askan xam nañu ne sa peuple dañu xiif amuñu lu ñu lekk xam nañu ne chaque année sa peuple ay junni junni Sénégal dañuy dee si géej gi ñoom ñuy bafoué li nga xamante ni mooy mooy mooy liste bi naan ñu ay 500 ay 400 xam nañu ne chaque année loolu day dee Sénégal ndax lan ndax dañuy dem di liggéey. ndax dañuy dugg si gaal yi dem tayale seen bopp parce que gaal yi mu ngi nga xam ne mool yi waroon nañ ko jël pour dem napp ji accord de pêche yooyu nga xamante nii moo leen waroon a may parce que bu ñu ko jaarle woon si yoon mu war leen a may ñu dem jël seen ay gaal dem nappi jën ñëwaat am jën yu bëri accord de yooyu la ñu du jaarle ko si ay si ay signature yoo xamante nii ay jaay suñu ressource naturelle jaay suñu géej tubaab bi di ñëw ñëwuñu di napp jën mais dañu ñëw pour manque dem leen xool bato bato espagnol yi wala bato chinois yi nëpp ñu jën mais dañuy mànq xam nga napp mooy nga sànni sa mbaal sànni xëy na di nga jën yu mag ngay jàpp mais dañuy mànq jën yi nga xam ne sax dañ doon door a judd sax yëpp dañu koy yóbbaale bu ñu àggee dem sànni ko parce que deewuñu ko dara di jël yu mag yi. yow chaque année sa réew di am loolu nga dem naan da ngay lijjanti ji problème boo xam ne yow sa yoon nekku si parce que lan ay man maay ay président union ñu africaine. ku mënul nekk président 17 millions de sénégalais Nous nga président 1 milliard 1 milliard d'Africains. moyenne parce que nous nous Afrique pour bokk je pense. Comment nous régler ce problème est ce que nous nga régler ci problème d'Afrique Afrique que li lay gis nga ay ay ay union africain ay ay ils ay yi gis nga pour Afrique pour africain

léegi nag bu fekkee ne ñun Sénégalais yi dañuy taxaw di seetaan Macky Sall di jàpp ay nit di leen tëj parce que dañuy xeex mbirum góor jigéen ku mel ni Cheikh Omar jaañ ñu taxaw di ko seetaan parce que ku nekk di di ngeen di nangu ñu leen di manipuler waa naan leen kii moo fi daan wax lii moo fi defoon lii ñii di dagg am ñoo xam ne daf leen di jaral daf leen di jaral ñu dem jël benn vidéo Cheikh Omar Diagne dagg ko këccët jël beneen wax boo xam ne wax na ko feneen boole ko si fexe ba boole ko si mu doon benn wax après ñu ne gis ngeen kii li la wax sëriñ bi fekk na lu lépp ay kàcc neen la dara amu si dara amu si am na ñoo xam ne jaral na leen loolu ñu ngi jël ay vidéo di ko montage di ko dagg benn par benn di ko di ko di ko di ko ñëw di ko taqale di ko jox wan askan bi nan leen moo wax lii seen sëriñ moo wax lii moo wax lii Sonko wax na ko démb je pense que ñu bëri bëri dégg nañ ko leeral na ko démb

léegi nak il faut que les onze sénégalais bi lillahi wa rasuli ma ngi wo kep ko xamanteni ni sénégalais kep ko xam da ngay défendre ay valeur kep ko xamanteni ni bëggoo mbirum góor jigéen le 11 inshallah rabbi samedi ginaaw suba prate le bliss à 14 h ñu ñëpp ñu fess fa del pour wan Cheikh Omar Diagne mu gis mbolo mi xamne mbolo bi nga xamne ño ñoo dem prate le bliss ki bi naan libérer Cheikh Omar Diagne ba légui ñu ngi déterminer wu ñu ngi nekk ci ginnaawam te bëgg nañu libérer ko num gëna gaawé donc loolu lay woy sénégalais yëpp le 11 samedi nous rabbi ñu ñëpp de l'Obélisque à 14h pour nous demander pour ñu libérer Cheikh omar parce que trop c'est trop te lu ëpp touru te Cheikh omar Diagne ñu ngi jaay doole si loo xamante ni tegul si benn dëgg tegul si benn yoon te ñu ngi koy seetaan te nag ku seetaan ku nekk complice nga képp ku seetaan état du Sénégal ne di di jaay doole Cheikh omar Diagne di di di bafouer li nga xam droit ay ak ak ay yelleefam ba si biir prison bi droit de visite bi nga xam ne waroon na ko am sax ñuy wàññi nombre de visite bi mu waroon am def ko par 15 jours te par 15 jours benn visite da si am droit am nga toog di seetaan loolu état bu Sénégal di continuer di ko def à complice euh, de euh, l' administration pénitentiaire képp ku taxaw di seetaan loolu te génnoo demande pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne parce que complice nga si loolu noonu donc je pense que loolu kese la c'est simple mooy le 11 ñun ñëpp nañu ñëw taxaw pour nous libérer Cheikh Omar Diagne parce que trop c'est trop parce que bientôt nous avons deux mois nga teeguñ ci la parce que la parce que diffamation insulte public, te même diffamation boobu noonu Madiambal Diagne journaliste ne sais Diagne si siliko daf ko convoqué yóbbu ko tribunal parce que lan lañ ko parce que diffamation ba léegi amul kenn koo xam ne ba léegi waxuma la waxuma la ay tëj xam nga sax mën nga ne tëj nañ ko mu dem rëbës wala woo nañ ko commissariat ba léegi Madiambal Diagne demul sax enquête commissariat bay dem rëbës wala muy dem wala wala wala muy dem feneen ak feneen ba léegi amul benn siis boo xam ne convaincu nga convaincu nga ko si loolu noonu ngir déglu ko sax gën a simple mooy nga déglu ko mu dem ba léegi tey jii la gën a tey jii la gën a yor benn surnoom xaw ma surnoom la yor xaw ma rëy làmmiñ chaque lundi mu génn ay ay la lundi de jambal jaan di fen fen yoo xam ne chaque lundi li muy wax da naa ne kii fenkat bu mag a mag la booy wër fenkat ba jàpp ko dangay taxaw ba léegi mi ngi koy continuer di diffamer di insinuer nit ñi te mujjul fenn parce que lan la parce que dafa bokk ci mouvance présidentielle parce que day défendre Macky Sall Gabriel Kane lan lañ ko toppee woon diffamation injure publique ñu condamné ko ba léegi kenn woowu ko. léegi Cheikh oumar Diagne moom buñ ko japp buñ ko topé diffamation insulte publique moy directement dañ ko wara a ba après bu ñu ko fa yóbboo ñu di ci information judiciaire après information judiciaire bi man nañu tok 1 an ne dañuy topp information judiciaire parce que information judiciaire kan mo koy def police judiciaire mo koy def enquête la enquête moom amul app parce que heure bu la nexé ñu ñu ngi si enquête bi lo ci man mëno ci dara ba légui ni dossier Cheikh oumar Diagne amul dara lo xamné ne yëmu na si du wo déglu ko du entendre du dara.

mais dañu leen a menacé ñenn ñi ragal ñenn ñi di am lu ñu sóoraale moo tax ñemewuñ see wax ñoom ñëpp ay tàppet lañ gëmuñu dara dañu sóob ñoom ñëpp ay tàppet lañ parce que mënuma gëm ne yow da ngay xeex ay principe mënuma gëm ne yow da nga am loo gëm mënuma gëm ne yow bëggoo mbirum góor jigéen ñu jàpp nit parce ay góor jigéen ñoo ko jàpp tëj ko si kaso bi yow nga maanu si ne doo si wax nga ne doo si wax ko quoi pour lan parce que lan moo tax doo si wax parce que dañu ragal ñenn ñi dañ leen a menacé loolu kese la léegi nag ñun sénégalais yi ñun jeunesse bi ñoo mën a taxaw pour génn Cheikh Omar Diagne mu nekk parce que dañu ko soxla ci débat public bi dañ ko soxla ci débat public bi parce que dafa doon nit koo xam ne nit ku am solo la ngir Sénégal nit ko am solo la ci débat public bi donc moo tax maa ngi ñaan askan bi lii laay war a suuli samedi na ñëpp génn palaate de ci 14 pour ñu demande pour ñu libérer Cheikh Omar Diagne ñu mu gën a gaawee parce que nag trop c'est trop te donc live bi tey loolu moo ko waraloon maa ngi jéggalu lépp loo xam ne wax naa ko si mu dëng rek ngeen xam ne euh, doom ay doomu aadama lañ dañuy juum lépp loo xam ne xëy na jub na si rek ñu xam ne si yàlla suñu borom la donc wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi baal waat ñëpp àq di baal ñëpp àq jaa ngeen jëf gars yi